rek euh, benn éclaircissement ci mbir mi nga xam ni moo concerné lotissement bi nga xam ne nii depuis 2012 la woon euh, ministre euh, Khoudia Mbaye à l'époque autorisé woon ko population bi bi ñu yegsee ci commune bi en deux mille en deux mille vingt deux population bi ñu ci bëri vraiment di ñëw ci mairie bi di ñaan ndimbal à ce que ñu continuer lotissement bi ndax xëja ci ñu seen kër yi seen doom yi war nañu am kër pour que ñu mën a tabax ndax boobu ba léegi ñu ngi birig birig yi di yàqu te mënuñoo tabax seeni kër mu nekk ay problème kon nag ci loolu laa woote ay réunion yu bëree bëri yoo xam ne nii euh, lu mu yées yées mot na juróom benni réunion ñu ñaan maire vraiment ñu dimbale leen jox leen kër yi pour que vraiment ñu mën cee dëkk mën cee uuf seen i njaboot jaamu ci seen yàlla.